ils sont en train de les audits et les contrôles. pour l'instant il ne faut pas injecter boo mois état bi fan la yàlla amee. da ngay freiner sa économie. tous les outils nécessaires au corps de contrôle ñu def seen liggéey avec les journalistes ku sàcc journalistes yi mën nañ laa feeñal ku euh, journalistes yi mën nañ cee wax yow état joue ton rôle régulateur création d'emploi rassurer les partenaires et euh, kii. nga topp sa feuille de route. ok honorable alors léegi soo nattee les premiers pas du président Bassirou Diomaye Faye ak équipe am ils viennent de faire trois semaines euh, diggante nomination yi annonce yi ak yooyu ak yooyu lan ngay jàpp nous sommes toujours dans la politique politicienne wala am na rupture comme ni ñu ko waxee woon. bon dans le choix de gouvernement déjà c'est bien parce que gis nañu ay bopp yoo xam ne bokkuñu passé bokkuñu fenn c'est bien mm. mais bu ñu fàtte Abdoulaye Wade defoon na ko. Macky defar na ko au début après ça a changé rapidement parce que des réalités les ont rattrapés mm. euh, ils sont en, encore dans l'apprentissage de l'État c'est la première fois que Bassirou occupe une fonction le président aussi haute c'est-à-dire d'aller de, de ta stature d'être d'un inspecteur aux, aux impôts et mm. domaines directement à chef de l'État où tu supervises toute une nation de 18 millions nga war a xëy gérer seen éducation seen santé mm. seen seen seen seen Cheikh Omar bu ñëwee lu ñu wax le matin balaa moo ndékki sax amul la na président de la république ça c'est un problème nga ñëw le premier ministre il a il a été député mhm. c'est vrai il a été maire mais même sa gestion de mairie jotu cee sori parce que les actes politiques ak xeexam contre Macky mhm. indi na ba tey n'a aucun bilan à Ziguinchor mais aujourd'hui il n'a pas été ministre et il se réveille il est premier ministre il coordonne tout un mhm. la volonté loo jàngul mënoo ko tari il faut nga jàng donc il leur faut un temps pour se mettre pour que la machine puisse puisse être en marche deuxièmement tu aussi des gens qui ont des peut-être dans le gouvernement qui ont des philosophies différentes par rapport à la marche du pays le groupe de Pastef ñi mu nekk ñoom seen philosophie lii la woon mm-hmm. mais c'est pas forcément la philosophie de Abdourahmane Sarr c'est pas forcément la philosophie de Abdourahmane Diouf mm. c'est pas la forcément la philosophie de Mabouba Diagne donc yooyu tamit ça demandera des réglages okay. face à tout ça là nawet baa ngi ñëw mm-hmm. euh, tabaski baa ngi ñëw mm-hmm. ouverture des classes baa ngi ñëw mm-hmm. tu as une assemblée nationale que tu ne contrôles pas donc c'est autant d'équations bu nga xam ne Bassirou au moins je salue une chose qui est très importante c'est un président de la République dal foo ma ko gis ma xool ko ma xam ne dafa dal et c'est quelqu'un qui est dans une posture d'écoute et c'est important. Mm-hmm. parce que posture d'écoute moo lay indil nga bañ a def ay erreur moom moom laa doon wax nga nekk caterpillar bulldozer. Mm-hmm. au moins tu es à cinquante kilomètres à l'heure moo gën nga nekk deux cent kilomètres nga mbëkku. caterpillar bi romb la jëlee la fa teg la à côté continuer def chemin am. Mm-hmm. donc ils ils ont devant eux un défi énorme tey loolu yëpp boo ko jëlee en trois semaines c'est très peu pour les juges. il faut aussi être vraiment juste. c'est munoo fi wax wow mu moo fi wax waxu politique politicienne parce que à part deux conseil des ministres mm-hmm. lan moo fi am ak nomination yi mujj y a pas encore grand chose boo xam ne mën nañ ko teg ci loxo loxo loxo sénégalais yoo xam ne mën na justifier nga mën leen juger léegi yow ban action nga jàpp ne jamono ji moom ci la ñu war a dooree mm-hmm. ba euh, politique bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a insuffler Sénégal tegu ci yoon woowu noonu danañ ko mën euh, la première <laughs> foog naa li li li li njëkk foog naa dëkk deux piliers ñoo ko yoragum l'éducation et la santé. ñaar yooyu wér yaram tant que nit ki mu ngi am mën a mën na dem jàngi mën a def. Mm. et orienter maintenant une vraie politique pour que suñu système éducatif bi ñu reprendre ko mu méngoo ak lu ñu bëgg. Mm. mais entre temps les moyens nécessaires yi nga soxla fi mu mën a gën a mën a am impact mooy ci mbay bi agriculture. Mm-hmm. élevage. pêche mooy li muy utiliser ci plus de un million de personnes direct et indirect loolu mooy indi lu bëri ça c'est trois la il faut nga war ci mën a am benn au moins dynamique d'injecter entre mille à mille cinq cent milliards pour moom mu mën a nga mën a joxe benn souffle pour mu mën a dox le deuxième problème que tu as à gérer et c'est immédiat c'est le secteur informel naka la ngay jëlee ci maanu secteur informel boobu pour war ko mën a dugalaat tuuti ci sa budget war leen jàppale ñoom itamit ñu gis seen bopp ci économie bi c' est pas que le secteur n'a pas d' argent hmm. ils ont beaucoup d' argent qui pas formel hmm. c'est pas organisé qui n'est pas organisé hmm. loolu tamit il faut nga mën a am accompagnement booy ànd ak moom ak mooy naxante ak ñoom leneen bi mooy naka ngay fexe ba mille trois cent milliards u diaspora bi au moins nga capté ci benn benn dix à vingt pour cent parce que les man dañuy wax ne mille trois cent milliards yi mais mille trois cent milliards yi c'est pas chiffré dans le budget de l'État kenn du ko sentir kenn sentir ko parce que mu benn mbokk faatu bu nekk à l'extérieur ne faatu dama bëgg a tabax faatu li ci ëpp day dem ci biens et consommation ay fayu euh, kër gi donc c'est pas de l'argent qui est vraiment injecté pour mu supporter les politiques publiques il faut nga mën a ne diaspora bi ci wàllu mbay bi am nañu ay bons yoo xam ne tey boo leen ko jëndee yéen en tant que diaspora mën na leen jural dans cinq benn benn benn benn un million deux millions trois millions. donc on a besoin de dix milliards. mais facilement boo ko ubbee ak les garanties de l'État. tu peux mettre de l'argent nga jël nga def lii ci mbay bi nga def lii ci santé bi nga def lii ci éducation bi xale yi nekk surtout la formation professionnelle. ça la formation professionnelle. effectivement tant qu'on règle pas mais tey boo toogee tuuti c'est pas de leur faute. mais man bu ma toogee ñaari yoon ñetti yoon woo sama benn booyu koñ mënu ma defal benn benn peinture wala couche de peinture booy pël fuuta bi nekk fii. Hmm. te moom xam na ne fii bu bu liggéeyul tey du am lu mu ndekkee lu mu am lu mu añee du mu am lu mu reer faatu ne ko kaa peinture ma da koy peintural ba mu set wicc boole ci nettoyé ko ba mu set faatu jox ko. di ko neexal mu dem <laughs> neexal ko. c'est ça parce que moi j'ai fait l'extérieur. qui hmm. fait l'extérieur c'est que la première chose à l'extérieur la survie. Hmm. li li yow Jérôme di bay man dama koy nangu parce que ban aw ma fi njaati gi aw ma leneen sama njaati gi mooy samay loxo mm-hmm. donc aujourd'hui tout ce moo tax pël yi di ci dugg bu ñu duggee dañuy am xaalis tout ce qui ak yenn tey Turquie ñu ngi ciy dugg ak mm-hmm. italien parce que tey le marché est là la demande est mm-hmm. donc ñun dugal nañ suñu boppu jeunes yi ak xale yi il faut nga dem école génne avec bac management nga nekk commercial nga nekk lii directeur de marketing wala dugg administration. administration. mi hmm. leen Njuba Kebe les les les Jili Mbay les grands les Bokar euh, kii. Samba Samba c'est pas l'école moo leen jox. Hmm. c'est juste voir un secteur s'investir dans ce secteur. Hmm. mu indi la xaalis ñi ci ëpp xaalis ci dëkk bi du ci njàng moo leen ko jox c'est pas être derrière un bureau. ça c'est vraiment loolu la. les Bill Gates yi ngay dégg c'est pas derrière un bureau qu'ils ont leur argent mm. les Facebook moom muy judd ci du condition nekk bureau mm. tey aujourd'hui il faut que ñu mën a xam ne l'entrepreneuriat c'est autre chose lenn rek nag laa laa xam ne gis naa ko ci gouvernement bi loo xam ne appellation boobu ñu ko woon dugal le secrétariat sur xawma l'encadrement du pays du du paysan la ñu wax am na lu ñu ko mais le terme paysan et resté le paysan aujourd'hui est devenu un terme péjoratif mm parce que tu lii le paysan à la pauvreté oui. automatiquement bu ñu la nee kii baykat la mhm. la ci ëpp yow yaa ngi imaginer dans ton imaginaire mhm. yorul <laughs> <laughs> c'est donc comprendre nga wax parce que même daanoo nos dans à l'école mhm. bu ñu lay woon baykat mu ngi yore uubi mu ngi sonn benn case mu ngi fële tu vois aujourd'hui il faut parler d'entrepreneur agricole quand tu mets le terme entrepreneur agricole personne ne retrouve sa dignité mais elle participe même dans l'appellation hmm. dans les politiques publiques mais bokk na ci lay valoriser métier boobu métier boobu tey koo demal bay xëy na étudiant bu génne université nga ne ko demal bay mais day gis boppam boppam ne la waaye man <laughs> ah, naa ma xoolee yow Fatou ma ne benn paysan mais boo ko neewee boo ko neewee quand tu sors de l'école on te donne à l'école déjà on te dit tu peux être entrepreneur agricole le fait ñu ne la un entrepreneur rek agricole hmm. boo génnee rek yor sa cravat dem ci chambre ñëw wàcc dindi sa cravate wàcc xool mm-hmm. teg mais tu deviens tu crées de l'économie locale ba pare jënd sa oto jënd say kii di dox comme ñëpp di def lu ñu def il faut enlever dans la tête des Sénégalais surtout des jeunes mm-hmm. que l'agriculture l'élevage la pêche c'est des pauvres qui le font mm. c'est pas vrai c'est un secteur qui est très porteur maintenant boo ko defee tu crées une valeur ajoutée. mais mais dans formation. foofu noonu est-ce que itam du euh, ni mu la ko waxee woon sànq fi nga xamante ne foofu la ñu war a yokk doole population yi nga xamante ne ñoom ñoo ci. Euh, ñoom ñoo ci yëngu parce que sànq maa ngi wax naan ku. di nga ko bëgg mais soo ci amul xam-xam soo gëstuwul xam-xam yi ba on se limitera juste à ce qui est ça. Mm-hmm. def agriculture bu ndaw. Euh, bay gëstu mooy euh, euh, ki méthode archaïque yi. méthode archaïque parce que looloo fi nekk lu tax lu tax ñuy comparer li nga wax nii ne des paysans ñi nga xam ne ñuy bay à des personnes pauvres ba parce que ñoom bay dundee la ñuy def. tey da ngay bay léegi am na ñoo xam ne bay noor bi sax bëriwul da ngay bay mm-hmm. nawet bay ci nawet bi 3 mm-hmm. mois nga am say 50 sacs de. de mille am quarante sacs de de ni nga sax de maïs yaa ngi bay ceeb yaa ngi bay euh, ñebbe ak euh, loolu lépp ba loolu lépp tey bëri na mais lan nga ciy def benn da nga koy def pour ta consommation mm-hmm. benn bi pour sa bétail ren nga jaay ko am ci xaalis dundee au lieu que yow nga xool nooy investir pour yokk loolu pour li ngay bay noor euh, nawet nga mën ko yokk ba may mën di bay noor ba yow tey nga mën a extendre li nga xam ne moo di sa moo di production ba parce que li nga xamante tey moo la war a may mu di xam-xam gu sori gi nga xam ne moo la war a may loolu xalaat boobu noonu nga war ko am ba doo ko am parce que yaa ngi xalaat nan foo ko ma tey euh, ma am xaalis pour mën a faj samay samay samay parce que da ngay a dund c'est là où parce que li ngay wax ni problème de structuration de l'économie la de la petite échelle à la grande industrie mooy mhm. ka am benn hectare am koy